waaye télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ding ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wér gu yaram santé animal dina saytu sama ñoo ngi ci box numéro 184 jàkkaarloog un très grand champion ñu koy wax Pape njaay jóge ba Touba dëkk bu sell ba tubaar fakal la Pape tey ñu bàyyi la nga nuyoog euh, Ladoum TV ak euh, bi nga dugg ci si bi Pape Ndiaye lan nga lan nga sentir salaamaaleykum waa Ladoum TV gannaaw bi ma leen nuyoo di leen di bége maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di sant samay mbokk yépp di am ca kontaante bu baax a baax ci participation bi ma participé ci foire bi waaw. moo la lan moo la boole ci foire bi bi lan moo la si boole lan moo tax nga ñëw. li ma ci boole mooy am ambition wane sama sama liggéey ak aussi gën a jàngat xam naa ne sa cirque bu mu toogee kër gi dama xam li xew mais bu ma ñëwee fii xam li maa manqué ak li ma war a waaw. waar fakalla macha allah loolu am na solo jamono yële passé dañoo gisoon Pape yore benn maal bu extraordinaire ñu koy wax Ila Touba tubaar fakalla mu defal ko liggéey bu am am solo jamono yi nag ah ñu for ci weewu laadum ni Pape def na benn recrue bu am solo Pape nga fàttali ñu recrue boobu rek wax ñu kooku fan la bokk. waaw recrue boobu mooy Sarr moo nekk nii doomu métro la métro Gandi ak métro Gorsi si Gandi waaw moom la gannaaw bi ma amee. benn tour deuxième tour ci Ila Touba ma xam ne il faut may def rotation ci laa ko changé joxe Ila waaw. Ah, kon Touba génn na seer ñëw. waaw Ila Touba na seer ñëw pour liggéey bi waaw. moom mi ngi toll si ñaata weer. Ila euh, seer mi ngi ci 20 mois commencé na tëb. si tëb na fa tëb na fa lu bare bare waaw loolu ak lu élevage yéen a ko déggandoo Ila Touba def na liggéeyam tem seer ñëw ordinaire. ay millions nag gars yi di ko teg si table bi Pape Ndiaye bañ Pape kooku mooy kan nga présenté ñu kooku wax ñu kooku fan la bokk. kooku mooy Leila Leila doomu Oguya Oguya Saloum Saloum moo nekk kii di moom moom la fa taawloo kii mooy Bébarama muy famille bu doy waar nekk bu am avenir bu éleveur yëpp bëgg waaye lu baax ñëpp a waaw. ak lu élevage yéen a ko déggandoo de. Layla moo taawloo kooku ñuy bébé Rama moom la ñu téye noonu di ko raay tubaar fakkal la waaw ñu fay ko ci ay millions nag Pape bañ ne du ko joxe ndax ak lu élevage gars yi dañoo bëgg lu baax te Layla mi fo mu bokk tubaar fakkal la Pape Ndiaye ñu gisaat fi beneen femelle bu rafet añeel bu doy waar nga présenté ñu kooku. añeel boobu ku ñuy wax Pape Malick Guèye bu ne Thiès moom moo ko moom moo ko jaay mu doon doomu Mislin Mislin préfet de Sëdu Saloum Saloum moom muy bu am avenir mi ngi septième mois war yaa ñoom ci moom yaakaar lool mooy moo nekk bi ah loolu am na solo macha allah ak lu élevage yéen na gisandoo ko loolu Pape Ndiaye nag mi ngi liggéey fële ci Touba liggéey bu ama ama am solo ca bergerie Lagane Pape nga fàttali ñu seen adresse rek ak seen numéro téléphone pour ku bëgg ñëw seet si sujet yi nekk waa waaw Touba Darou Tanzil la ci côté Elidia bi su numéro téléphone 77 549. 98 36 mag Eli Diar mag Eli Diar tout près waaw ci ci bi ñoo dee daway jërëjëf kontaan nañu merci Pape dina ànd ak yow saytu wér yaram santé animal dina saytu sama